rebondir rek peut-être anticiper si par rapport ak les contestations fi ñu jëm hmm. moom laa moom laa ko doon bëgg a daggee sax xam nga xam nga tey à Grand Yoff opposant xam nga à Grand Yoff ñu dégg la bu baax à Grand opposant non non non <laughs> bàyyil ah, bàyyil ma bàyyil si li nga wax xam nga ñun à Grand Yoff yàlla dogal na mhm. ñu ngi ànd ak ma jóg pendant depuis 2009 présent mhm. et ku xam ma jóg xam ni c'est un vrai prototype de Grand Yoff. issu des mouvements à fleurs. issu des mouvements de la des mouvements citoyens. des issu de l'éducation du civisme mu ñëw en 2014 mu ne dama am projet pour defar Grand Yoff pour aménager embellir et paver Grand Yoff Grand bi bu ñuy ñëw 2014 l'axe HLM l'axe axe Patte d'Oie ba feu Camp Pénal axe boobu moo gënoon métti ci Grand que dina bien sûr ah, parce que artères yi ñu njëkka laal. en parce que ak foofu noonu moment yooyu noonu. kenn daan loon mën a circuler normalement. c'était tellement encombré. Mm. encombré. mais yoon may ñu doole jox ñu tous les moyens nañu c'est dans votre prérogative de pouvoir éduquer la population dans la citoyenneté dans le civisme mu ñëw axe boobu ñu jël ko désencombré ko ba mu set soo taxaw jardin Padois da ngay séen la fa campénal ñu ñëw en 2022 on a commencé le deuxième mandat ñu pavé artères yooyu yëpp ba mu jeex et dugal pavage yi dans les différents quartiers de Grand Yoff avant de démarrer cette cette deuxième phase. Mm -hmm. même troisième phase d'opération de désencombrement. xam nga li ñu def. ñu ne askan bi su ñun la bokk. askan bi ñoo ñu fal askan bi ñoo tax ñuy liggéey mais balaa ñuy def quoi que ce soit fexe ba yónnee leen ay notes d'information. Ah, on a envoyé des sommations on a envoyé des notes d'information. Mhm. pour wax leen ni le allah dinañ démarrer liggéey bi. Mhm. mais loolu amul ñoom ñu toog nañ fa le 13 c' est le 17 qu' on a démarré les opérations le 17. Mm-hmm. mais ba ñu ñëwee on est venu avec toute l' équipe municipale. si mm-hmm. ñëw bu bu jekk bu rafet parce que on a eu les 4D qui nous animent c' est désir de pouvoir embellir et aménager notre cadre de vie. Mm-hmm. et l' améliorer. Mmh. on a cette décision de pouvoir le faire avec tout le monde la détermination et la discipline. malheureusement. xam nga nit fu toogee fenn yaakaar ne fi mu toog légalement la fa toogee day jàpp ni loolu yoon moo ko may alors que le le trottoir et destiné pour le piéton. maanaam ñiy dox. ñi dox ñoom ñoom moom trottoir mm-hmm. tali bi oto yi ñoo ko moom mais marché ñëpp xam nañu kuy def activité commerce danga war a dem ci marché ci marché nga war a dem loolu moo indi waxtaan loolu moo indi en fait. ñu naan déguerpissement bi ñeent mu am coow bi mais ñii di coow mais ñii di coow ñii di coow xam nga xam nga ku la jox ku la informé ba pare ne la dàquma waxtaan xam nga kooku wàccoo naa ak yow parce que dala war wormal mm. delloo na la cër gi nga moom yow mais dimbali ko moom ba nga xamante ne moom li nga xam ne mooy cëram mu daal di ko def mm-hmm. parce que à Grand Yoff dans chaque domaine de compétence boo fa duggee le maire Madiop a pu faire de réalisation énormes si mm-hmm. axe boobu noonu on eu des réalisations énormes soo rombee ba yegg ci état civil bi on a repris l'état civil mhm. et on a informatisé l'état civil de 2000 jusqu'à 1983 toutes ces années sont dans dans, dans la machine ah soo ñëwee doo taxaw soo ñëwee da ngay ñëw demander sa excès ñu jox la ko sans difficulté sur sur place sur le champ sur le champ loolu c'est pourquoi ñu gën a inviter rapidement le ministre des collectivités territoriales donc ah mu dimbali surtout les agents ñu mën a au moins reprendre le travail parce que Grand Yoff l'état civil de Grand Yoff fait partie des états civils les plus convoitisés hmm. tout le monde vient chaque jour chercher des, des documents là-bas boo ko weesoo tu as la maternité de Grand Yoff qui a été élevée à un standing extraordinaire donc mais soo defee ay réalisations yu mel noonu ba pare dugal pabaaji si biir koñ mais askan bi dafa war a réjouir ci loolu wara a approprier loolu warul xaar le maire il pose juste un acte quand ils désencombrent c'est les populations qui doivent suivre mm-hmm. donc ci loolu lañ doon woo population de Grand Yoff mm-hmm. mais jusqu'à après mais aujourd'hui il y en a beaucoup d'entre eux qui ont compris c'est pourquoi nous allons bientôt d'ici demain à une grande rencontre pour sensibiliser davantage encore à ces marchands ambulants